gan gi Mamadou Mbodj Diouf bokk ci bureau politique bu parti socialiste ñu ngi lay nuyu. Euh, fay naa la euh, soxna Fatou. ñu am mbégte dalal ci matinalu réew mi FM tey. maa ci gën a kontaan di mm. nuyu waa Rewmi FM yëpp. di nuyu aussi mbokku sénégalais yi ñuy déglu. jërëjëf alors euh, Mamadou Mbodj Diouf yaa ngi bokk ci bureau politique bu parti socialist boobee bureau euh, daje woon aljuma bi ñu weesu ngir euh, def ab jàngat natt élection locale yi nu génn wax itam ci yeneen i mbir ginnaaw bi ngeen waxtaanee ci locale yi lan ngeen jàpp yéen waa PS. waaw mën nañ jàpp ne li gën fës ci li nga xamante ne moom la ñu tënk maanaam ci suñu secrétariat exécutif moo di ne dañu ci lim bi ñu def daal parti socialiste euh, euh, mooy jël ñaareelu position soo jëlee APR ci wàllum parti waxuñu nag coalition mais parti lañu wax. Euh, bon ma naan loolu nag xëy na ay chiffres la rek ay statistiques la yoo xamante ne peut-être jàngat bi ñu am ci élection yi moo ko wone mais la ca gannaaw te mënuñu ko mënuñu ko fànq mënuñu ko bañ a bañ a wax. mooy que ne parti bu aussi dafa am tolluwaay bu mu nekk te su fekkee ne dañu yem rek ci chiffre yooyu xëy na mën nañu nax suñu bopp xëy na mën nañu nax nit ñi parce que nag loolu képp ku ko dégg aussi donte euh, militant socialiste nga di nga am yenn jeexi jaaxa yi parce que xëy na euh, même su fekkee ne yow commune ba nga dëkk PS nga fa xëy na amoon na fa candidat euh, xëy na moo ngi fay yëngu mais da lay wóor ne commune ba ca wàll ba wala instance ba nga dendal xëy na PS yëngatootu fa wala book la fa des bareetul donc loolu yëpp da yoo xamante ne liggéey la boo xamante ne da ko laajaat te euh, fi mu fi ñu ko mën a jaarale yëpp mooy ci laat suñu instance yi loolu je pense que lu ñu yàgg jooy la lu ñu yàgg laaj la e li nga xamante ne sax euh, moom mooy li gën a jàmp fi mu toll nii parce que nag mbir mi mënatul xaar parce que soo ne soo waxee ñu ne renouvellement yi foog coordination yi jeexal ko foog ñu coordination yi renouveler pour ñu mën a dem congrès mais dama jàpp ne tant que moo ngi am ñoo xamante ne xëy na renouvellement yooyu arrangé wu leen wala bugguñu ci yegg euh, su fekkee ne congrès ba ñu ñan ñan ñoo bëggul yegg si renouvellement yi ci sa xalaat. bon foog naa ñi nga xam ne peut-être amuñ ci intérêt. Euh, Aminata Mbengue Ndiaye. Euh, bon du ma ne rek Aminata Mbengue Ndiaye parce que mënuñu jël rek lépp lépp lépp teg ko ci ndoddu Aminata Mbengue Ndiaye xëy na moom moo fi wuutu président Ousmane Tanor Dieng yal na ko yàlla yërëm. mais dama jàpp ne Ameth Mbengue euh, laajul pour ñu teg ko fi mu nekk xëy na euh, dafa tombe euh, moom moo nekkoon premier adjoint Ousmane Tanor Dieng nekkatu fu mu wuutu ko mais li may bëgg a wax rek mooy responsabilité boobu ñun ñëpp ñun ñoo ci am wal maanaam Aminata Mbengue Ndiaye que mu bëgg que mu ñàkk bëgg il faudrait que aussi au niveau la base que coordination yi responsable ya fa nekk nam ko bëgg ko mais dama su fekkee dañ ko naroo a wékk foofu rek muy ci volonté Aminata Mbengue Ndiaye wala muy ci volonté responsable yooyu nga xamante ne ñoom ñoo nekk à la base parce que ñu ci bëri nag et foog naa ne lu ci ëpp aussi résultat yi wane nañ ko euh, xëy na la ñu doon peser wala euh, na la nit ñi doon xoolee ci base yooyu ak euh, léegi wuute na. Hmm. peut-être loolu mën na tax ba ñoom xëy na peut-être euh, renouvellement yooyu arrangé wu leen mais ñun dañu ne ñun mënatuñu toog si naan dañu xaar ay renouvellement di xaar ay yeesal ay instance li ñu laaj parti bi mooy nañu dem congrès extraordinaire. Hmm. su boobaa ñun ñu mën a yeesal instance yi euh, mën a liggéeyaat suñu parti. li nga xamante ne peut-être mooy moom la militants yi di xaar mais surtout sénégalais yi di xaar mooy ñu gisaat beneen xar kanamu parti socialiste. Hmm. te volonté boobu foog ñu am ko mais surtout que loolu ci ñun la mën a jóge et que foog naa ne parti socialiste mu tool nii euh, ni ko suñu naataango yi nga xamante ne peut-être mën nañ ne suñu ay maas lañ. Mhm. nekk ci opposition yi. Euh, euh, population yi jox leen bopp te je pense que résultat yi am ci élection yi wane nañ ko. Mhm. noonu la ñu ñun aussi ñun ñu fësal ñu ci suñu biir ay parti ñun ñu gis ñu et que parti bi mën a jógaat. ci kaw lan ci kaw yaakaar bi nga xamante ne euh, population yi mën nañ ko am ci peut-être xar kanam bu bees bi nga xamante ne wane nañ ko. Mhm. mais surtout que militants yi am fierté gisaat parti socialiste boo xamante ne euh, dafa jógaat taxawaat pour mën a dem conquérir en fait euh, yeneen. Euh, responsabilité wala en tout cas perspective électorale yi di ñëw. Mhm. alors wax ngeen ci euh, yeneen i élection yi ñëw mais bala ñu ciy egg euh, ñu wax ci ànd bi diggante PS ak Benno Bokk Yaakaar pour ne pas dire APR parce que élection locale yi ku ne xam na ni am na ñoo xam ne ci PS dañoo deman ak seen cëggal guy yow ci nga bokk yaa ngi woon candidat ci Jaxaw Siin jàkkaarloog Pape Birahim Touré mi bokk ci APR Benno Bokk Yaakaar sampoon ko est-ce que loolu mënta tax ñu jàpp ne nag diggante yaa ngi tàmbalee ñagas wala amu ci benn njeexital. loolu dama foog ne euh, évolution normal la rek ci organisation politique bu mënti doon. Hmm. parce que euh, foog naa ne euh, organisation aussi li nga xamante ne moom moo gën a bon ci organisation. Hmm. mooy mu bañ di évoluer. Hmm. te loolu li koy waral mooy su fekkee ne toujours dara changé wul même chose la ñuy gis day dem ba soof nit ñi. te xam nga élection yi passé man damay li ma doon wax rek mooy que Euh, réalité locale la c'est-à-dire ña ca gox ba ñoo xam ñoom la ñu bëgg la ñu namm mm. te lool la ñuy def mm. nekkoon na ñeneen jóge feneen ñoom ñoo ñooy imposer leen mm. effectivement dem nañ élection locale ci bannière parti socialiste ci kaw nag ñu exiger parti bi mu déposer une caution parce que loolu si dañ ko war a wax du loo xamante ne dañu ko may en dañ ko exiger xeex ko pour jot ko ci parti bi parce que nag euh, dafa xam loo xamante ne dañ ko dundoon nag euh, ci biir coalition bi ñu toroxal ñu Euh, te foog naa ne ren sax euh, su fekkoon ne jot bi amoon nañ mënoon ci citer exemple yu bari. Mhm. loolu tax nag ñu ne élection locale yi nga xamante ne moom lañ passé su fekkee ne tooguñu waxtaan waxtaan ba ca war. Mhm. ñun dinañ jël suñu décision. Euh, dem ci suñu bañeeru bopp wala dem ci beneen yi bannière mm. l'essentiel est que ñun lañ waroon def def nañ ko je crois que euh, résultat ba euh, donte gagné je pense que marqué nañ suñu territoire loolu muy wane ne rek euh, euh, li ci am li ci am solo te ñu yàgg ko wax mooy que balaa ñoo dem élection ñu toog waxtaanee ko. Mm. acteurs yi nga xamante ne ñoom ñooy les principaux na ñu toog waxtaanee ko. Mm. parce que fi mu toll nii ñoo ngi jëm ci législative te la woonoon ci élection locale yi mais loolu mën na amaat ci élection législative su fekkee ne waxtaan boobu amul. maanaam ngeen dem ak seeni liste. dama ne dama ne loolu warul mën a yàq dara ci coalition Benno Bokk Yaakaar. Hmm. parce que nag euh, jéem la rek soo jéemee li sottiwul nga jéem. la ca wàll. Hmm. loolu la alors euh, législative justement nan nga jàpp ne noonee la ci PS war a demee parce que boo naan la woonoon euh, yaa ngi peut-être junj sax négociation ak tractation yi nga xam ni amoon na bi ñuy def investiture locale yi PS nan nga jàpp ne noonee la war a demee ci législative yi ba mën caa gis boppam. waaw tant que tant que gisuñu leneen dañu jàpp ne ñoo ngi ci coalition Benno Bokk Yaakaar mhm. et foog naa ne priorité bi toujours mooy ñu toog waxtaan ci biir coalition bi nan la ñuy demee mais nag du ñu nangu lu nekk la nga la la nga xamante ne peut-être moom lañ doon bañ démb ak euh, démb démb ak barki démb moom la ñu ko ni di bañ. mooy la fekkee ne waxtaan boobu amul. Hmm. ba ñun ñu gis suñu bopp ci investiture législative yi. Hmm. foog naa ne là aussi liste parallèle li nga xamante ne amoon na fi dina fi amaat. Hmm. loolu euh, foog naa ne euh, kenn euh, amuñ ci benn xiili xaala parce que quand même parti lañ. te donte ñoo ngi ci biir coalition benn Bokk Yaakaar. nañu xam ne ay entité autonome lañ te dañu war a traiter en tant que tel. du rek da jàpp taxañ ne nii lay demee rek voilà que forcément ñëpp dañ ciy ànd mënta demee noonu mënatul demee noonu te foog naa ne loolu suñ ko jéemee sax gis nañ di ci li xew ci élection yi fi ñu sanctionné bari nañ pourquoi parce que xëy na teg nañ fa ñoo xamante ne population yi bëggatuñ leen a gis mm. parce que safatuñ fa parce que dañu dayool ci ñoom et je crois que loolu aussi Euh, autorité wu coalition yi war ko bàyyi xel mais surtout responsable parti politique yi war nañ ko bàyyi xel. Mm. en tout cas pour li nga xamante ne mooy suñu parti concerné ñu ñun suñu bopp. am na loo xamante ne ñun mënatuñ ko nangu. ku leen faagaagal daal ngeen di bañ. comment. ma ne ku leen faagaagal ngeen di bañ. waaw du ñu nangu loolu. du ñu nangu loolu te man dama parti bi. Mhm. ni ko ni ko amee ay naataango ci biir opposition yi. Mhm. ñu dem wane seen bopp population yi jox leen. Euh, jox leen seen bopp jox mhm. leen seen kàddu ñun suñu naataango yooyu ñun ñoo fi noon en 2012. doon xeex ko côté du président Macky Sall ba mu falu ñooñu ñoo ngi ci opposition bi xëy na euh, am na nu ñu doxalee ba peut-être population yi wóolu leen pourquoi parce que am nañ euh, générosité wu euh, rajeunir seen personnel politique. Hmm. loolu nag moom moo amagul ci coalition yi loolu moo amagul suñu parti politique yi. te loolu ñun loolu ñu bëgg exigé la loo xamante dinañ ci taxaw danañ ko xeex pour que loolu mën a nekk. Hmm. donc investiture yii di ñëw il faut que ñu xam ñu bàyyi ñu defe ñu doxalee ko nu leen neexee te su boobaa aussi liste parallèle yi nga xaman moo amoon ci élection territoriale yi liste parallèle yi ñëwaat ak conséquence yi nga moom lañ gis voilà très rapidement waxtu bi dab nañu léegi PS euh, lan lay xaar ci gouvernement bu bees bi ñuy euh, séentu ndax danga jàpp ne war na noo yokk seeni ministre wala li ngeen am fi mu ni baax na yéen a ngi ciy gis seen bopp mais mais bien sûr xam naa ne ndëgërlaay boobu. Hmm. yàgg nañ koy xaar. Hmm. malheureusement nag bañ koy xaar ba tey euh, gisu gisa gisaguñ ci résultat parce que c' vrai que am na ñaari ministre mais foog naa 2012 ba tey euh, ñetti ministre lañ tàmbalee woon perte nañ benn bi pratiquement ëpp ci suñu direction nationale yi nga xamante ne ñoom lañ contrôlé ak président conseil d' administration yi ci ëpp ñàkk nañ ko. Hmm. te nag dama ne coalition bi ñun dañ ko jox. joxuñu ko bopp rocci làmmiñ dañ ko joxoon lépp. Hmm. mais malheureusement ñun li ñu constaté en tout cas ñun la jeune génération mooy des nañ ci gis suñu bopp. te encore une fois foog naa ne am na échéance luy ñëw am na yeneen enjeux yoo xamante ne ñoo ngi ñëw euh, il faut que ñun ñu mën a gis suñu bopp ci biir coalition bi pour que vraiment euh, li nga xam ne mooy suñu participation. li nga xam ne mooy li nga mooy li ñuy xaar ci partie social ak ci militant sociale yi. Hmm. loolu ñu mën ko mate mën taxawaay bi il faut que cër bi nga xam ne moom la ñu laaj ci biir coalition bi ñu jox ñu ko donc li may xaar au-delà du fait que dañu war a consolider les acquis parce que nag ak lu ñu mënti wax nañu jàpp ne président de la république euh, def na fi un bilan boo xamante ne xëy na war na mën a tax lépp lu mu namm ci réew mi mu am ko mm. et li ma ciy yokk rek mooy foog naa ne consécration bi ñu am dernièrement ak euh, Euh, coupe d'Afrique bi ñu gagné. Hmm. loolu xëy na mën nañ dugg jàpp ne peut-être bilan bu reluisant moom moo indi loolu yëpp. Hmm. donc loolu kon foog ñu consolider ko mais nag foog ñu bàyyi xel euh, li nga xamante ne population yi wane nañ ko ci élection yi passé mooy que ne bëgg nañ gis euh, yeneen xar kanam ci coalition bi. bëgg nañ gis ñeneen nit. Hmm. et surtout que rajeunissement boobu mën a am mais surtout. perspective bu élection législative yi loolu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax. li may bëgg a wax daal mhm. mooy. que gouvernement bi ñun liñ cee xaar mooy que sacrifice yi parti socialiste consentir yëpp de 2012 à ba tey. Hmm. Euh, il est grand temps que. ñu fay ko ko président de la république fay ñu ko. d'accord alors ñu jeexal du direction parti bi du responsable parti au sommet euh, gëmët gëwuma ne mën nañ. téeméeri temps yi ci euh, en tout cas désir boobu nga xamante ne am nañ ko. Hmm. pour gën leen mën a jox seen gëdd jox leen seen i cër. d'accord ñu jeexal ak njàng meeg njàngale mi sori woo ko dara ndax euh, yaa yore projet bi ñeel yeesal daara yi donc euh, yaa ngi ba tey ci secteur éducation crise bi nga xam ni ba tey daanaka pënd bi wureegu ci négociation yi di bloqué lan nga jàpp ne xëy na moom la ñu war a def ba génn ci guuta gi. waaw bon foog naa ne foofu crise boobu sax euh, xëy na am nañ njort ne léegi mu jeex ndax euh, négociation yi foog naa ñoo ngi avancé bu baax te camp bu nekk muy camp wu syndicat yi waa wàllum enseignants yi. Mm-hmm. di camp wu gouvernement bi foog naa ku ci nekk yaa ngi dox ay jéego. Mm-hmm. pour que ñu mën a tase am accord. Mm-hmm. donc euh, ñun li ñu mën a def mooy ñaan que vraiment loolu antu. parce que nag vraiment école bi aussi moo ngi souffrir. xale yaa ngi xale yi sonn nañ bëgg nañ jàngi euh, malheureusement depuis lors euh, voilà ça prend du temps. Mm-hmm. mais am nañ njort bu rafet que ne vraiment léegi mu antu surtout que ne état bi vraiment mu ngi def ay efforts yu am maana te euh, je crois que syndicats yi aussi am na loo xamante ne war nañ ko mën a bàyyi. Mm-hmm. ne serait pour que ñu mën a retrouver wu autour de l'essentiel te essentiel boobu mooy avenir u njàngale njàng mi mais surtout avenir u xale yi. Mm-hmm. en tout cas am nañ yaakaar ne xëy na fii ak euh, semaine bii di ñëw di jeex. Mm-hmm. Euh, ñu trouver accord et vraiment semaine ba ca topp xale yi mën a jàngi dugg ci classe yi vraiment mu doon euh, juste un mauvais souvenir. jërëjëf Mamadou Mbodj Diouf ñu ngi lay gërëm amoon te dalal la ci matinalu réew mi FM tey fàttali ni yaa ngi bokk ci bureau politique bu parti socialiste soro itam projet bi ñeel yeesal daara yi ñu ngi lay gërëm. merci beaucoup